jërëjëf mbokk yi nga xamante ne yéen a ñuy bàyyi xel sur Bprod amaat mbégte ak contentement comme ni ñu ko defee saa su ne mbokk yi comme sama nuyo boobu may tàmm di nuyoo di ñaanal aji daw li yàlla na leen borom bi yërëm taxare leen àjjana ñi nekk si hôpital yi yàlla na borom bi fëgg seen bopp ñu jóg waaye ñi caabi féete ginnaaw yàlla na leen borom bi may ñu génn ñi nekk bitim rew maa leen di ñaanal borom bi may leen ñu am lu ñu indil seen njaboot yi tey nag maa ngi fii nga xamante ni moo di Grand fii si Arafat seet si Euh, champion bi nga xamante ni moom la ñuy wax boîte vocale euh, mu war a bëreel ak Bébé Balla euh, samedi 20 juillet foofu nga xamante ne mooy arène national tey di open press am waaye gis nga dafa xat moo tax lamb daa am ca arène national moo tax gisaguñ fi presse bi mais dinañ ñëw boîte vocale maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bay la nga nuyu ñu lay seetaan. ginnaaw bu ñu sant yàlla jul si yonte bi sant suñu ñaari waajur. di gërëm waa Ganaay bi nga xam ne tamit fii laa juddoo fii laa yoroo rawatina ak Touba xama rek gars yi dañ bëgg tamit xama rek gars yi dañuy def seen dañuy jël seen alal lépp di ko def si man di sant waa école de lutte Père jaw di sant sama papa Père Diaw di sant waa école de lutte per Diaw yëpp cat ba cat di sant waa Grand Yoff yëpp ak mbëru Grand Yoff yëpp maa leen sant autorité Grand Yoff yi maa ngi sant gars yëpp ku si mel ni Grand Ama Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm moom tamit di ko béggee bu baax a baax ku si mel ni kii Codé suñu entraîneur Codé moom tamit maa ngi koy sant ak Grand Bouba ñi nga xam na tamit mooy loolu noonu di bëgg gaa yëpp grave yëpp. Mhm. Ah, nga war a bëreek ak Bébé Balla samedi fee ci arène nationale Boite Vocale jugee si victoire ba pare muy bëree li nga xamante ni mooy grand combat euh, naka la la def. waaw ñun moom dañuy waajal lépp ñun moom daanaka ñun pare nañ avant combat bi combat bi daanaka mun naa ne bettu ma quoi ñun moom dañuy nekk di entraînement nekk si entraînement yi ba combat ñëw parce ñu bëree waale ko combat bi nekkul combat ñu bett waaw instant pare waaw dañuy xaar jour bi jot rek ñu dem appliquer Guyana bu ñu liggéey lépp waaw. combat bi est xam nga fi mu lay yóbbu boo daanee. waaw combat bi fu may yóbbu mooy maanaam sam bakkan laa si war a teg ndax combat bi euh, am treize combats mais combat bii nii mooy sam premier grand combat mais dafa mel ni combat bi mooy sam premier komba arène ndax combat bi mu ko fonkee waaw. Boy Vocal bëri na treize deux défaites kon lan la coow mooy loolu bilaay noonu la demee xam nga rek ménagère moo ma taareeloon sax moo tax tey jii mooy loolu ménagère moo ma taareeloon moo tax tey jii man booy yi nga xam ne maanaam ñoo dipite ndoo ñoo nekk ndoo si arène bi yëpp booy daana ko dem nañ fa sori mais man ba ma changé ménage ménagère si la soog am euh, spécial. ok comprendre nga yàlla def tey jii xam nga rek sant yàlla ko ndax tey jii euh, ñaari spécial yu ma bëri yëpp dama changé ménagère moo tax ma bëree ko mais sa ménagère bu njëkk ba xam nga rek mooy loolu quoi dañ doon bëri rek gaan mooy loolu waaw dañu doon seetaan quoi combat day yàqu mu ñëw woo la ne la kaay bëri nga ñëw bëri daan mooy loolu acan nga nekk at ba at benn combat loolu du yoon quoi waaw écurie bi nga nekk fa la ki nga xamante ne mooy papa bari bari nekk sa sa waajur jiite ko euh, mbëru garant fi ndax ñu lay jàppale ku si mel ni Paa Paa Bari Ba mbëru grand mbaru école de Père jaw yëpp ku mu bu ma limee rek damay juum mais gars yëpp ay Baye Fall lañ ay champion lañ tey jii nii ñoom waruñ ma tey jii damay ñëw carrément ñu ne ma non non yaay tëdd fil bi te dëgg la maay tëdd fil mais xoolam naa xoolal yéen jiitu leen rek maa ngi seen ginnaaw ndax sama oyofaay mm-hmm. waaw man rëyu ma moo tax booy ñoom ñëpp maa leen sant gars di leen gërëm ku si mel ni euh, Rassa bi nga xam ne tey jii moo jiite équipe bi yëpp di des ñun tey ji lu ñu mel lépp moom la yàlla yàlla tey ji nu ñu mel ñun ñëpp muy baari baari di ñami ñami di booy granaf ñun ñëpp du ñu mel rek école de Père Diaw la moom la waaw rasa la ñu jëm bi monsieur la ko nar a bëree waaw combat bi flag fayda rek at joxe bakkan ndax tey jii nii boo déggee boo demee ba ne làmb ak rek tey ji ñu bàyyi say morom yëpp jël la nga bëri grand combat kon tey jii dafa nekk yoon nga jëm jeexaat waaw rayante pour am li nga bëgg pour mun a dem fi man nekk nii dama fi yàgg dama war a mën a dem barki Serigne Touba. nga nga war a bëre euh, Grand Yoff ku ne xam na ni Grand Yoff mën nañu wanewu Grand Yoff da ngay gis doomu Grand Yoff boo xamante ne day génn ailleurs di jàppale ay ñi nga xamante ñooy euh, njabootu jàmbur te ñi nga xamante ni ñoo dekk si gox bi du leen jàppale monsieur est-ce que am na ñu koy jàppale ci làmb ji. waaw sant bi jàppale bi moom dafa des bu baax a baax jàppale bi dafa des bu baax a baax ndax tey ji nii autorité grand yi fi nga xam ne tey jii ñoom ñooy yor xaalis war a war a mun a jàppale booy nii instant bi loolu mooy seen problème. ndax tey jii bu ñu jàppale woon booy rek booy fii ay champion moom ñoo fi nekk Grand Yoff barki Serigne Touba ay booy mun a bëre mm. ay ndaanaan ñoo nekk Grand Yoff barki Serigne Touba kon dañ leen war a mën a jàppale quoi ndax ñun ay xale lañ ndax dañoo bàyyi yëpp mm-hmm. ñëw na làmb lañ bëgg kon jii nii yi xam nga rek jot na tamit ñu jàppale booy waa Grand Yoff yi nga xam ne tamit dañoo bëggul làmb tey jii làmb deewul Grand boo xoolee làmb tey jii nii dafa mel li nga xam ne tey jii mooy loolu noonu ndax tey jii bu njëkk ba tamit mun naa ne Grand Yoff làmb dafi deewoon carrément ay côté banlieue yi mooy la mais Grand Yoff léegi ñu ngi soog dundu dundul làmb ñu ngi soog a bëgg làmb kon tey ji jot na tamit autorité Grand Yoff yi tamit jàppale booy yi nga xam ne tamit dañoo nekk Grand Yoff tamit bëgg làmb bàyyi seen lépp bàyyi ngir ngir làmb kon gars jot nañu wan ñu geesu leen waaw. Ah, tey euh, ñan ngay woo ñi nga xamante ne ñooy waaw instant nii euh, ku si mel ni Ama Ndiaye moom. mu ngi may jàppale bu baax a baax a baax a baax a baax sama grand Ama Ndiaye maa ngi koy sant di ko gërëm mm-hmm. waaw Ama Ndiaye moom xama rek moom kenn du moom moom tey ji moom xaarul kenn si lenn Ama Ndiaye xaarul kenn si lenn Ousmane Sarr mooy woote waaw Ousmane Sarr kii gaa gaynde la ndaanaan la barki Serigne Touba kenn du moom dugub may na ma xaalis bu bëri noonu la mel barki Serigne Touba Ousmane Sarr na ma xaalis bu bëri xaaruma si lenn sama mbokk la barki Serigne Touba Mbacké <laughs> billaay wallaay kenn du moom billaay wallaay projet bu ñu mel ne moom barki Serigne Touba ndax tey ku si am combat lu ndaw barki alxuraanu karim boo ndawee sax mbëru premier combat sax barki Serigne Touba Mbacke da siy jàpp da siy jàpp day may xaalis yu bëri mm. mbër yëpp amul mbëru grand buy bëree te du la may xaalis te du la jox xaalis même boo ñëwul si moom sax day ñëw si mbojju ne eh, mbojju joxal kii déw déw déw xaalis bi ñëw ba si moom fekk Ousmane Sarr kenn moom barki Serigne Touba Mbacke waaw ah. Zé euh, euh, mi ngi noonu am na solo ah, euh, dañ koy rappelé waat rek yéen ñi nga xamante ne yéen a dëkk Garaaf ne deretu Garaaf mooy daw seen yaram yéen ñi nga xamante ne yéen a yor seen alal ku yor alalam moom nag mënoo ko buntu xatal wala li ko xëxët pour mu may la si par la force waaye Garaaf am na ay professionnels yu fi nekk ku si mel ni Ousmane Sarr bi ñuy lim léegi léegi yorul dara Zé wul sax Ligue 1 mais teewul li mu am mi ngi koy bokk ak mbër yi ñooñu lañ soxla fii ci Grand Yoff am na ay professionnels yu fi nekk ñi nekk ay Ligue 1 di lekk seen xaalis nekk ci équipe nationale yi dañu ne ngeen ñëw jàppale doomu Grand Yoff yi fi dëkk ngeen bàyyi seen affaire yi ngeen di def yéen a moom seen alal nag du ngeen wax li ngeen di def waaye loolu mooy li li ñuy bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan monsieur le 21 encore une fois nga war a bëre ak ki nga xamante ne mooy Bébé Balla monsieur bu daanee Bébé Balla fa la jëm ñan. waaw làmb daf bàyyi xel ndax tey jii nii xam rek. tey jii nii booy nga gis nii tamit ay ñoom liis njaago booy nii ëpp ñu ma ëpp ñu ma doole dàq ñu ma bëre ku ma si dàqul bëre dàqoo ma bëre mais booy xama rek jàppale la ñu am jàppale la ñu am moo tax tey jii waa staff bu baax moo tax tey jii fu ñu toll nii ñu toll fa mais tey jii nii ñun tey jii nii pare nañ pour jeexaatal mbëgg mbër yëpp ndax ñun tey jii bàyyiwuñu benn mbër bi nga xam ne bu dëkk dëkk Grand Yoff rek lañ fi bàyyi mm. keneen kuñ ma ku ñu jox dañuy bëre ak moom ndax instant bi mooy loolu lamb ji dañuy soxla ndax tey ji boo xoolee lii nii yëpp lii yombul nit ñi bàyyi seen yitte yëpp ñëw def teew ngir benn nit kon tey ji du yoon la nga dem jaxaat barki Serigne Touba Mbacke mhm. waaw waaw monsieur lay wax ñi nga xamante ne ñooy waa ñu tëjee foofu rek ñi nga xamante ne ñoo lay jàppale ak nekk sa ginnaaw waa gars yi gars yi moom ndeysaan billaay gars yi ma bëgg te yàlla tax barki Serigne Touba mbaake muy école de lutte Père Diaw di mafia yi fi nekk nii Grand Yoff billaay walaay ku si mel ni mafia san loi booy nii xama rek booy dañuy yëkkati seen ndeysaan seen xaalis mooy sama moroomu raq yi dañuy yëkkati seen xaalis ndeysaan di ko def si man walaay booy kenn du ñoom barki yàlla waa Enjay euh, Kaboy tamit di bëgg gaa yëpp waa waa waa Branson waa Boy Njaago waa Touba Rafat waa Enjay ñëpp grand Senzala bi yëpp barke yàlla ëpp njoo waa ñoom manu sama gars yi ñëw leen ngeen jàpp si combat bi ndax combat bi nii gaan waaw yoon la gayaan ngeen jàpp si gayaan ñu dem saa yi mbër bi wan ko lu ñu entraînement mhm. wan ko lu ñu mën est-ce que mhm. ndax tey jii tamit dafa nekk yoon tamit làmb war ñu ginnaaw war war war ñu kanam ndax tey jii xam rek mooy lool ñu dañoo sonn si làmb ndax tey jii seen i papa mooy école de mooy Père Diaw tey bàyyi si ni tey yëpp ñëw ndeysaan sonn si ñun seddaay ndeysaan fa fala koy fekk wallaahi muy nekk du gis papa kenn mais day toog booyal safara toog ndeysaan ñun ñëpp wallaahi mu sonn si ñun torop torop torop torop ku si mel ni ganaar rasa bi nga xam ne tamit day bàyyi itam yëpp ñëw di ñu jàppale bàyyi itam yëpp di ñu jàppale kon tey jii tamit war na tamit xama rek ñu ñëw wane fulla ak fayda xama rek wane jàmbaar ndax tey jii làmb ji instant bi xama rek booy fi nekk nii yëpp dañuy sóob dañuy xàññi booy duñu tus duñu dërëm ñun mun nañ bëri macha allah te instant bii nii yoon la tamit ñu wane suñu bopp si làmb ji. mais monsieur di nga toog da ngay xaw a ne man est-ce que du ma bàyyi làmb loolu loolu loolu dafa metti wallaahi billaahi gis na sama gars yi ndeysaan dañoo daw ba soon billaahi surtout sama rakk yu jigéen yi dañoo daw ba sonn ndeysaan di dem fu nekk man ñooñu moo tax billaahi booy duuru billaahi may ray sam bopp man damay góor na yàlla damay entraînement du ñëw ndeysaan fekk leen ndeysaan ñu dugg si tineel yi wallaahi king saaliw ñëwal jàpp si tigéey gaayan xama rek affaire làmb ji metti na trop te instant bii gaan moo affaire dëgër Ousmane Sarr ndeysaan men Ousmane Sarr moo yëkkati xaalisam bu bëri ñëw jàppale ma ko tey jii tamit waa noonu la demee waaw sama gars yi ngir yàlla ñëw leen jàpp si combat bi gaan ndax combat bi combat bu ñu soxla na Arafat wallahi zar zar yoo tamit ñëwal jàpp si waaw ñëwal jàpp si bloc yi ndax instant bi xama rek bii mooy seen buntu làmb waa Formose Mendy waaw Moussa Koné gaan yéen ñëpp gaan ñëw leen jàpp si combat bi gaan bilaahi mm. waa école de Père Diaw nag gars yi nekk nii ci ay jàmbaar lañ wu ma kenn barki Serigne Bamba ñoom ñëpp maa leen nuyu cat ba cat nag. wallaahi booy ay jàmbaar lañ wallaahi booy dañuy sonn dañuy sonn si man damay dem ba géej booy dañuy dox ba géej wallaahi pour ñëw di kontaan ak man rek ma kenn barki Serigne Touba Mbacke. waaw ku si mel ni papi tamit papi Samba. moom tamit maa ngi koy sant di ko gërëm. ak asma asma sam booy bi xama rek moom tamit xama rek moom tamit day taal mbutoom di ma yóbbu ku si mel ni baaba tamit baaba zip. Baba Zip day bàyyi léppam moom tamit di ma di ma jàppale. Mm. moom tamit kenn du moom wallaahi. di bëgg gars yi may àndal yëpp mafia bi may àndal yëpp ay ñoom Pape Kumba Yaama ay ñoom Pascal ay ñoom Duudu mm. ay ñoom Ndaat ñoom ñëpp maa nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne gaan gars yi dañuy bàyyi seen yite yëpp di ma ko di ma jàppale wallaahi. waaw yow mooy loolu gaan la fin waaw waa Aswa nag waa Aswa waa Aswa dañoo def si man lu bari mm. waa Aswa kenn du ñoom. wallaahi waa asfa maître yi fa nekk ñëpp maay bëgg gaa yëpp waaw at xama rek ay jigéen yu baax ñoo fa nekk tamit gaa yi dañ ma bëgg wallaahi ay ñoom ay ñoom mañik ndeysaan sama gaa yi nekk foofu ñoom dañ ma bëgg trop barki alxuraanu karim dañuy sonn si man te combat bi ñoom ñoo wax gën a soxla wallaahi waa asfa combat bi ñoom wax gën a soxla wallaahi waa jërëjëf waaw bëggee waay jaajëf duudu gaan jaajëf yow rafet na gaan waaw noonu la demee ci

Baba Bio présente la gamme Cannelle la gamme Cannelle am na diw bopp ah diw bopp Cannelle pour sa karaw gën a gudd dundal ko fexe lépp loo xam ne da di siti mu dindi ko dindi lépp luy karaas sa bopp ci boppam karaw be cuir chevelu bi mën a dund am nañu huile cannelle ngir nooyal sa karaw sa karaw di nooy dindi karaas yi huile cannelle mooy huile bi nga xam ne mooy saxal sikkim ndaxte kat ñëpp dañoo jël sëqal sikkim fu mu toll nii am nañu shampoing cannelle à base d'aloe vera ak ginger day setal bopp di ko dundal di dundal karaw gi karaw gi gën rafet waaw waaw di dindi ay teeñ dañ ak yu ni mel am nañu it pommade ah jigéen ñi déglu leen de ndànk laa koy wax ci suuf duma ko wax ci kaw de day yokk hanche di yokk ginnaaw di yokk tamit dën bu leen ko wax kenn am nañu tamit loolu nga xam ne moom mooy tax say lèvre di rose di nooyal tuñ crème lèvre cannelle Saraba Bio 77. 161 12 12 77 161 12 12 ak Saraba Bio moo leen andil produit cannelle bi mujj ñëw gëna a féete xale ëpp doole ci marché bi. nekk benn tali ginnaaw école Madiaye Sall.